laqad qasama allahu siyaadata fi lazal li ahmada wal ixsaana fi lqawli wal amal fa lillaahi ma asda wa lillaahi ma bazal sayyiduna muhammad simaalul yataama wal masaakiini lam yazal cana baa nga naan sayyiduna muhammad laqad faaza man kaana رسول الإمام يقول بعين والنجاة زمام وكل من استقصى عليه أنام تسير رياء النصر شهرا أمامه فأخلأوا ما بين خوف وذلة بكي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته bu ngeen déggee Pape Abdoulahi Mbuub ñuy tagg Seyduna Muhammad ci sunu téere bu tedd boobu ñuy wax Ummul Hayb ngeen xam ni am na lu xew am na lu ñuy waaj Alioune Ndoye la xew ak li waaj lu mu doon mooy gàmmu tawa bu sëriñ Xalifa Gueye macha allah moom la ñuy waaj moo tax ñun bokk julli ñu toog nii waaye xalifa nee na mu ngi siyaara way juróom xalifa bu maam Amari Ndak Seck sëriñ Xasan Seck bi nga xam ne daal dëkk moom di way juróom muy bu Canaba Gusaas macha allah bu maam Taala Seck di siyaara sëriñ Abdou Aziz Cebe waaye sëriñ xalifa Gueye nee na gàmm googu macha allah mu ngi woo képp kuy wax ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammad rasulullahi waaye di ci woo nag sëriñ Papa Seck Mourtala bu sëriñ Madika Seck borom yàlla nee na Serigne Talla Seck borom dëkkub Canaba Kajoor waaye bu ngeen bëggee xam nag gàmm googu la cay xew ak kañ la ak nu muy doxee macha allah am na sunu bokk yu nu toogal sunu yaay Khalifa Ndiaye mi ngi toog di kenn ci suñu Khalifa Gueye mu xaddam nekkal Serigne Madika Seck ci taw waaye neef kër fa waa kër maam Omar Ndaa Seck yëpp Serigne Cheikh Amadou bu Serigne Madika Seck mu ngi nii xam naa kon dañuy jox sunu kàddu rek sunu ndiyaay Khalifa Ndiaye mu wax ñu lan mooy programme mu gàmmu taw bu sëñ Khalifa Gueye ñu dellu santaat yàlla bu baax Seydina Aliou wax nga dëgg gàmmu tawa gëy waaye gàmmu tawa gëy mooy gàmmu Canaba Kajoor mooy gàmmu Canaba Bawal mooy gàmmu Canaba Gosaas lu waral loolu tawa gëy lan wax maasallaahu sunu maam ñum ñëpp maam ma roq roqaya gëy roqaya gëy moomu maasallaahu meññal maam ma dikkee boo ko doon seet fan tawa gëy rek ngay dem bokki jullit yi bokki taaliba yi maasallaahu maam ma Njaay mi nga xam ne mooy wayjuru waa tawa géy ginnaaw ba nga xamante ne nag masallahu xam ngeen ni maam amari ndaak bi muy dem ci jihaad ji doomam ju baax ji di Momar Talla Seck kenn doyu ko ci woon ku jun sëñ tawa tawa googu mooy tawa géy rek benn famille rek la masallahu tey jii boo doon seet wuri si njàngaan yi góor gu mag rawatina ki ni wax sëriñ Abdourahman masallahu mi ngi wanagu xalifa Ibrahima Gueye mi wanagu maamam ca Cenaba Siin moo tax ma ne gàmmu Cenaba gàmmu tawa gàmmu Cenaba la ñëpp ko bokk masallahu xalifa Ibrahima nag masallahu di ci woon ñëpp képp ku naan laa ilaha illallah muhammadu rasulullahi rek mu xaddam baa ngi lay woo ci googu gàmmu ndax masallahu noonu lañ ko yore noonu la dunde di ci jiital kan nag suñu xalifa ñun ñëpp. baayam woy juróom xaritam nag baay Assane mi mu dëkkal dëkkandoom dëkk ca Naba Gosaas ca Naba Gosaas ak sawa di benn ëtt maasallaahu Baye Assane fonk xalifa doomoo ko xaritoo ak moom def ko conseiller technique kon xalifa nga lay fàttali yow Baye As sa gàmmug bopp gi nga xam ne le 7 mars la koy def yaag sa doom yëpp rawatina góor gu mag maam taala mi nga dénk sa jumaay bopp ji mu def ko itey boppam. xalifa Ibrahima rakkam ba ci sëñ Abdul Wahab masallahu dellu nang di woo magi boppam ji mu bokkal benn wayjur di sëriñ Abdul Aziz bi nekk cabi masallahu xalifa mi ngi woo képp ku naan laa ilaha illallah muhammad rasulullahi xalifa ngi lay woo ci gàmm goog nga xam ni mooy gàmm ak Tabaski yi noonu la xalifa woowee masallahu sëriñ jibrilu Seck bu Seydina Ibrahima sama turandoo masallahu mi nga xam ni fauteuil bi sëriñ ma dikka toogoon bi mu ajajee kenn toogu ci kudu Seex jibrilu ñuy ñaan fauteuil bi yal na ko yàlla seral yal na yàlla yàgg ci moom ci barki yonte yàlla Muhammad Seex jibrilu yàgg imaamul akbar masallahu Seydina Seexu Amadou sëriñ Ahmad Dam professeur bu mag bi sëriñ ñaana chef de village nitu yàlla ki niru waajuram macha allah ba ci sëriñ Ahmad Dior Dior Dior Seck ak njabootu sëriñ Ibrahima Seck gépp ah seen turandoo waajur wi di xalifa Ibrahima Guèye macha allah mi ngi leen di fàttali seen gàmmug bopp gi noonu la demee ci mbokki boppam nag macha allah muy sëriñ Modou Rokhaya mi nga xam ne macha allah mooy xarit fa maam ma tapp ñaari garaat. muy xalifa maam ma dëkkee di xalifa way juróom bàyyi wu seen xujja mi nga xam ni jënd jëm la woon rek képp koo xamante ni mas nga ko ëppi at wala nga mas a nekk seex cana ba rek am am na sa ngërëm moom bay wu seenu yan yàlla dolli leeram ci barki yonent Yàlla Muhammad di fàttali sëriñ Alpha Mamadou Sarak ak bay ma dëkkee ak sëriñ góor imaamul akbar ngeen xam ne yéen maasàllaahu ñu ngi leen di fàttali gàmm taw bu baax noonu la demee ci xaratu boppam bokk ak moom tur muy sëriñ Ibrahima bu baay baay taala xaar tu yàlla ga nekk nit ku baax ak maa maasàllaahu ñam bokkal baay taala xaar te mooy imaamul akbar sëñ Mouhamadul Makhtar di xaratu xalifa ak sëriñ Adama Seck di xalifa doyul maasàllaahu sëriñ Baye Diop Seck porte-parole bu yaru bi di xaratu xalifa ba ci maam Magam mi nga ni du fekk benn soxla bu fajowul ba ci sëriñ Ibrahima may caat kenn ku ca rek ba ci sëriñ Alpha Mamadou mi nga xam ni maasallaahu moom lañ tudde Baye alfa te Baye alfa ak bay ma dikki de kon bi génn jëm muy premier talibé maasàllaa moom bàyyi ma dikk géey mi meññ xalifa mii nga xam ni mooy wootee gàmm googu bokk jullit yi bokk taaliba yi noon la xalifa ibrahima demee kër way juram bàyyi mouhamadul sek woo kan Seex Ahmad Tijaani xalifa bàyyi dul sek bu yaru bi kan rakki boppam ja sëriñ as borom ndigal maasàllaahu mi dekk kil fépp fu maamam jaaroon ak ñim ko bokkal ñëpp maasàllaahu xalifa ibrahima noonu la woowee nag ah jigéenu boppam nag di def ko yaay waaye nag ah <laughs> muy magam nag muy soxna ana soxna ana mu Seydina Ibrahima masallahu xalifa Ibrahima mi ngi lay yëgal gàmm gi ak kooko bokkal sa mag yu baax di sëriñ soxna Xadi Ba mi nga xamante ne ak sa rakk yu baax ak soxna Xadi Ba mi nga xam ni masallahu mooy sunu jigéen ñu ñëpp noonu la xalifa Ibrahima wooyee waa Mirina saar Kër Baye Bakar ak ñam ko bokkal ñëpp te Serigne alfa dégg nekk ca bopp ba masallahu seen porte parole bi El Hadj Ngañ Demba Sarr Gorsi noonu la xalifa Ibrahima woowee. la ku naan laa ilaha illallah muhammad rasulullahi rek mi ngi lay fàttali googu gàmm bokki jullit yi bokki taalibe yi sëriñ xalifa ibrahima noonu la duggee kër baay muuri sek woo mbokk boppam ba abdul sëñ abdourahim sek ak rakkam sëriñ ñaaxa sëñ màggat ba ca taala ñi nga xamante ni ay mbokki daaraam lan ca daaray kokki masallahu xalifa ibrahima nag ah ba mu wooy mbokkam yooyu ba pare nag la daal di wàññeeku nag ci sëriñu boppam xaritu boppam masallahu ku mu doyloo ku mu yaakaar kooku mooy kan ah mooy sama sëriñ nag sëriñ Mouhamadou Mourtala mu sëriñ ma dëkke mi nga xam ne nag ah moo jël xalifa Ibrahima ñaanal ko samp ko ci ndigalal baayam baay ma dikk gëy ak ndigalal njijaayam sëriñ maama xulle masallahu xalifa nag ah nekk nag borom ngor nekk borom diine yàlla jàppale ko yàlla dimbali ko mu ne ma fii mu ne fii ma sama waajur dugaloon daal incha allah damay seetlu ko yokk waaye duma ci wàññi dara jël sëriñ Mouhamadou Mourtala masallahu teg ci kanamam di ko roy masallahu di ko déglu guddi ak bëccëg masallahu lépp lu baax fu ko gis yéene ko ko bu ko mënee yenu indi Thiénaba Kajoor noonu lay def moom xalifa Ibrahima bokk jullit yi bokk taaliba yi ah ak képp kuy njabootug ma Madické wala ngay daayira bu aju ci Thiénaba rawatina bu Serigne Madické Seck borom yàlla nee na noonu la Serigne xalifa Ibrahima nag daal di nag xaaral nag moo ku am baatin da ngay am saayir xaaral ma dem ci saayir bi ñu ne ko saayir bi kan la mu ne maa ngi woon ak président de la république. alaaji Macky Sall mu yor mi nga xam ni maasallaahu ñëpp doy loon nan ko ngi yaram ak tegginam yann yàlla jàppale ko ci réew mi eggle ay nisanam ci barke yonante bi di jaar nag ci buntu président kooku mooy kan nag ah bun Abdoulaye jon mi nga xam ne nag ah Mouhamed nag day xaritub xalifa Ibrahima yéena ko lu nekk jàppale ko seetlu ko gëm moom bun Abdoulaye secrétaire général du gouvernement ancien premier ministre masallahu bëgg Macky Sall lu mu dox Macky lay waxal lu mu def Macky tax mu def ko mun moom Boun Abdallah mi nga xam ne Khalifa Gueye la jël nag masallahu def ko sëriñ def ko imaam imaam rek la koy woowee masallahu def ko xarit di waxtaan ak moom guddi ak bëccëg masallahu Khalifa Ibrahima di woo ki nga xamante ne nag ah mooy bun Abdallah xaritu boppam nag di ko ñaanal wér. maasallaahu di ñaan li mu bëgg ci réew ma ak département bu mu dëkk muy Gossas la mu fa bëgg yal ko yàlla defal ci barki yonent bi alayhi salaam moom la xalifa Ibrahima nag maasallaahu di ko ñaanal yàlla ginnaaw ba mu ñaanalee président di woo soxna président. mi nga xamante ne mooy yaay nation bi te mu mat ko soxna Marème fay sal masallahu xalifa Ibrahima noonu la woowee nag képp ku nekk ci état bi nag rawatina nag autorité yi nekk Gosaas préfet su préfet ba ci maire ñi ay xariti boppam masallahu wóolu ko xalifa masallahu bëgg xalifa masallahu jàppale xalifa muy département Gosaas bi yëpp xalifa dugg nag masallahu néeg baayam nag di woot. taawu baayam masallahu sëriñ xalifa Guèye bokk moom turandoo masala mu jël dëkk ba dëkk ko soxna ka sëñ Kang masallahu jël dëkk ba masallahu joxaat ko kan sëriñ Alpha Mamadou magam bi mbokkal benn waajur te Alpha bëggul dara lu xalifa bëgg mu ne mi ngoog lu xalifa soxla mu ne ko baal ma dem bu ko xalifa yónnee mu dem bu ko diggalee mu def bu ko teree mu bàyyi kooku mooy kan kooku mooy taawu bàyyi ma dikk Guèye way juru xalifa bàyyi ma di ko jël ko tudd ko masalaw sëriñ alpha sëriñam xalifa topp ci nag mu tudd ko sëriñ ibrahima Seck kon bàyyi ma di ke nasam jëngaru ñu ngi ñaan ci san borom bi bàyyi ma di ko fii mu tëdd uuf jumaam ju tedd ja masallahu yan yàlla di dotti di dotti yërmandeem saa su nekk ci barki yonante bi moo ko ay sëriñam bokki julli di bokk taalibe yi masallahu xalifa ibrahima nag daal di ne xaaral nag ma daal di dem nag fa nga xamante ne nag fa laa nekkoon nag sëriñ mouhamadou mourtala masallahu mu dima mu alquran nag pour mu pour mu fanaan ci sama dënd di ci yeewu di ci yeewu muy kan muy daaray kokki daaray kokki masalaw ca ndigalu ka nekk ca baba di sëriñ Mouhamadou Makhtar Naar loo mi nga xam ni demul dikkul alquran ay añam mooy reeram mooy léppam moom lay tëddal moom lay yendol masalaw ak ña koy jàppale ñëpp ñu gën cee ràññee rakki boppam je sëriñ fallu masallahu ba ci alaaji idrissa njaay idrissa euh, alaaji ibrahima idrissa njaay mi nga xam ni masallahu jënn jëm rek la ak képp ku nga xamante ni mas nga jaar daaray kokki wala nga mas a dugg ci daara ak fu daara ja nekkee xalifa day nitu daara ba nee na képp ku yor daara ci àddina jëlale na réew mi waaye ku yor daara ci àddina rek mi ngi lay woo ci gàmmum gii ndax kat gàmm ga gàmmuk daara la masallahu bokki julli di bokk taalibe yi xalifa Ibrahima xam nga ni mi nga woon nag ah kër ndeyam nag ndax ku am kër baay da ngay am kër ndey muy waa waajur xulle waajur xulle te sëñ maama nekk ca boppa bokk yaayam lépp bëgg xalifa yërëm xalifa di wéy juru xalifa ba pare nag jëlaat ak kilifteefam yëpp wolu xalifa jox ko ko te alaaj maam alaaji Malick dani bu ne diw baax na mu ne ndax mbokk yaa ko wax kon xalifa masallahu seen nijaay say mag say sëriñ ñëpp ñu ngi lay gërëm di la ñaanal yàlla di ñaan sa bis bi yal na la jëkk di ñaan bis bi yal na yàlla yóbbu nu ci ci jam ci barke yonent bi alayhi salaam bokk jullit yi bokk taaliba yi sëriñ bi ah na <laughs> sëñ xalifa ne nag na xaar ma ma retourné ci na ba nag ndax sëriñ Souleymane Seck borom xaas day sama xarit ak ay doomam masallahu ba ci magam taala Seck sénateur masallahu ak kan nag mu ne maa ngi kër waa kër bay baab ma ñëng yëpp nag ndax ñooñu ñooy muqaddam yu mag yi muqad bokk ci muqaddam yu mag yi nga xam ne nag masallahu ñoo ngànk kër gi ak képp ku nga xamante ne rek muqaddam nga boo xamante ni yaa ngi aju ci canaba masallahu bokki jullit yi bokk taliba yi noonu la xalifa woowee képp kuy tagg yont yàlla Muhammad wala nga yëggal yëkkati ba de zikru la xam ngeen ni foofu na ba Kayoor ñoo koy zikar waaye képp kuy tagg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sa place nga ca ndax kat ah seen mbokk Muhammadul Muhammadu Mahfous Khoule kooku <laughs> moo yore micro ba nag ndax eh, masallahu sang la ci xalifa seen wajur yi bokk lépp waaye muy xarit ci xalifa Mahfouz moo tax mu ne day profité moom Mouhamadul Mahfouz di woo képp képp ku nga xamante ni yaa ngi téye micro di tagg yont yàlla Muhammad pap alaaji papa mbuub bu alaaji Ousseynou ci nga bokk alaaji euh, Aliou Ndoy mi toog masallahu ci la bokk alaaji Mouhamed mbuub masallahu ci la bokk ah ba ci Mouhamed Ousseynou ba ci Mouhamadul Mansour suma xarit ñoo ñëpp masallahu sëriñ Xalifa Ibrahima mi ngi leen di wàcc gàmm gi di ci wanag ah masallahu Seydi Limaal Madiyu minu duppee maamam nang te muy maamam Madiyu Ba sama xarit ginnaaw ba mu woowee sëñ masallahu bokki jullit di bokki taaliba yi waa Mbour Serigne Mortala Mbour masallahu Serigne Mortala Mbour Serigne Serigne Mortala Mbour masallahu Serigne baa ngi koy wàcce gàmm gi gàmm boppam la noonu la Serigne Khalifa nag nee na xaar ma delloo ca tund Gosaas wa nag di woo mboolem ko bokk ci apartement Gosaas wala nga jege tund wa rawatina waa fas Kofi masallahu fas ak Kofi. sëriñ Khalifa Ibrahim mu ngi leen di fàttali seen gàmmug bopp gi ndax yéen yéenay borom gàmm gi yéenay dalal gan yi masallahu dalal gan yi yéen yéen ci jàppale waa Tawa ak waa Wajur kon yéen waa fas Khalifa Ibrahima mi ngi leen di fàttali seen gàmmug bopp gi masallahu Khalifa Ibrahima mi ngi woo. Euh, ki nga xamante ne nag mooy alaaji Taala Jaañ maire alaaji Taala Jaañ maire nag masalaw xam ngeen ni ak baax ma tax xalifa di ko woo taw a gëy ndax wutu faw kat ñooñu duñ ko fal duñ ko folli waaye alaaji Taala Jaañ masallahu fépp fu lislaam bi wootee boo ko mu ñëw moo kan ah moo nga xamante nag sama xaritu la nag muy kan ah alaaji abdu ñi ngi nang o oh, ko sayee mi nga xamante ni masallahu léppam sëriñ Mamadou la léppam Baye Alpha Mamadou la ndax woy juróom wu tedd wa Baye Alpha Mamadou ko tuxala ca dëkk ba te boobu mooy xalifa ba indi ko ca na ba ngir yàlla ak alquran boole ko ci imaam yi kon alaaji Taala Jaañ monsieur le maire bu baax bu yaru bi maasallaahu alaaji ab ñing gor si nga xamante ni yéen ñaar damay wax ni kenn ku ci nekk teraanga bi la yàlla sédd sa morooma la ko jox ngeen di ay seex seen maam ya seen waajur ya seqoon mag ñi masallahu ñu ngi ñaan saa borom bi gën a tappe seen i xol yokk seen i garaat ngir cana ba jëm ci kanam ci barke yonte bi alayhi salaam sëriñ bi mi ngi wax kan nag alaaji manjaay kebe mi nga xamante ne nag masallahu alaaji manjaay nit la koo xamante ni moom it masallahu boobu rang la nekk monsieur le maire ah sëriñ xalifa ibrahima mu ngi lay fàttali sa gàmmu bopp gi waa xëy ca la ñu bokk xam ngeen ni waa xay masallahu xalifa ay mbokkam fa dañ fa nekk nag eh, ndax mbokk gi dafa yaa mi ngi woo waa xay ak masallahu bu bàyyi bu bàyyi mbay aramaan ak magam sëriñ papa Seck bu bàyyi Souleymane ah xalifa nag ñooñu ay doomi bàyyam lan ndax bàyyi Souleymane ak bàyyi mbay Seck masallahu sëriñ Mamadou la leen seen wajur joxoon ne leen ñaar ne sëñ Mamadou ñaar ñii yaa leen moom ba ci seen i bàmmeel moo tax El Hadj Talla Cissé nii sëriñ Mamadou nee na keroog la xam ni ñoom ñaar ñoo ko moo leen di rob sëriñ Alpha dana ko ñaar ñii jox naa leen yaa leen moom ba moomaale seen i bàmmeel moo tax ñoom ñaar ñëpp kenn ko ci nekk masallahu sëriñ Mamadou Alpha moo la rob kon sëriñ Pape Mourtala masallahu sarak sëriñ Khalifa Ibrahima sëñ Maodo masallahu sarak yaak sarak yëpp sëñ Abdou Karim mi nga xamante ni demul dikkul te lépp lu ma soxla ma ngi koy faj ak sëriñ Adama Seck Gorsi ak sëriñ Jibi mi ngeen bàyyi ak tante yi mu xool doxal doxal yu rafet masallahu Khalifa Ibrahima mi ngi leen mi mi mi ngi leen di mi ngi leen di fàttali nag seen gàmmug bopp gi bokk jullit yi bokk taalibe noonu la Khalifa masallahu di woo képp ku naan laa ilaha illallah muhammadu rasulullahi rek xalifa mu ngi lay woo ci googu gàmm masallahu di woo ki nga xamante ni nag mooy a xalifa sëriñ alfa mamadou bokk ak moom lépp masallahu muy kan muy xalifa ibrahima Seck ñu ne xalifa busa masallahu xalifa ah kalifa Ibrahima mi nga bokkal wenn wayjur muy sëriñ Mamadou mi ngi lay fàttali gàmmu boppam gi maasallaahu di sa gàmmu bopp ak képp ko bokkal sëriñ Mamadou ginnaaw ba mu woowee sàkk ju baax jëm dëkk ba mu dëkkal di dëkkandoom muy sëriñ Abdul Aziz mi ngi woo magam sëriñ Daouda Seck ak kan masara Seydina Ousmane mbokku daaraam ak sëriñ Seexu mbokku daaraam ak rakam maam Amari Ndak yal yàlla dundal ko ci barke yonent bi alayhi salaam sëriñ baa ngi woo masallahu ak Abdul Wahab sa gàmm gaa ngi noonu waaye mi ngi woo doomu baayam nang ñu mbokkal nang baay nang kooku mooy kan mooy waa kër baay Modou Faye masallahu waa kër baay Modou Faye góor jigéen mag ak ndaw xalifa Ibrahima mi ngi leen di fàttali seen gàmmu bopp gi masallahu nang di ci jiital nang ka yàlla jiital ci ñoom nga xamante ni mooy xalifa ba seexu waaye nag ah masallahu seen imaam mooy kooku mooy kan mooy seen Daouda Faye xalifa Ibrahima nee na xam nga li nga am ca gàmm nga te incha allah di yàlla mi ngi ñaan yàlla yàlla may la wér ba nga ñëw jël si ko ci jàmm xalifa daal mi ngi woo ñëpp di woo képp ku nga xamante ne rek yaa ngi sëtoo sëtoo ci maam ma jë maam ma ku jë gëy ak foo mën a nekk ñu nekk Bawal nañ nekk Kajoor nañ nekk Saalum ñoo ak foo mën a nekk rek bokk ci maam ma ku jë gëy xalifaa ngi lay fàttali sa gàmmuk bopp macha allah wala nga bokk ci Baye Ibra Xulle ak foo mën a nekk sant xulle bokk ci bàyyi ibra xulle ba ca ngolle ga nga xamante ne mooy cosaan lii ñoom ñëpp xalifa ibrahima mu ngi leen di fàttali nag masallaaw seen gàmmug bopp gi bokk julli di bokk taliba yi gàmm ga la set mars la yàlla yàlla yóbbu ni ci jàmm kon xam ngeen ni gàmm gaa ngi noonu noonu la ko xalifa ibrahima fàttalee sëriñ taala sek imaamul akbar ca na ba kayoor di ko gën a jaal rakam ju baax da Seydina Cheikh Amadou di ko ñaanal yàlla sa borom bi wàcce ko ca barsàq mag ña masallahu di ko yëgal xalifa Ibrahima rakkam masallahu ba ci ñoom sëñ Omar ak képp ku mbokkal baay Abdul Aziz la ko waxee it masallahu rakki boppam yam mbokkal baay muy sëriñ Alpha bu baay Moussa ak sëriñ Mouhamadul Makhtar mi nga xam ne ay rakkam lan ay mbokk daaraam lan waaye ay dëkkandoom lan kon mi ngi leen di fàttali seen gàmmug bopp ga di tawa sunu yaay Khalifa Ndiaye jërëjëf ci kàddu yu rafet yu tegginu yu matale yooyu waaye ginnaaw kàddu yi suñu yaay Khalifa Ndiaye euh, wokkal ma wokkal joo gis nag euh, du yàgg nag bu yàggee ngeen nag euh, fii sama loxo moo fa jot kon ñu jox xalifa Khalifa Gueye mii borom gàmm gi mu am lu mu baax ci gàmm gi ak lu waral gàmm gi. sheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim la hawla wala quwwata illa billahi al asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu yéen mbokki jullit yi ñu ngi leen di nuyu di leen siyaara di leen jéggalu di leen jéggal di ñaan ñëpp yàlla boole jéggal ñu di tàmbalee ci nuyo bi ak siyaara bi suñu baay suñu sëriñ soppeeb bi yëpp ñu ngi koy nuyu di ko siyaara di ko ñaanal yàlla yàlla gën a guddal fanam yàlla gën koo dolli wéram yàlla gën koo defal jàmm ci li nga xam ni moom la yilif liggéey bi nga xam ni moom la yore muy liggéeyu maamam yàlla na sama boroom may ko mu joxal jox jooxal ko ci na mu ko bëggee wala nu kawe njortu ci teraanga ak rafetaay itam yàgg lool ci barke yonent bi ak képp koo xam ne rek ilif na la ci cekkeen wala mu ilif la ci wàllu diggante sëriñ ak taalibe mu ngi nii ñëpp di nuyu jotaay bi fii ñëpp di jiital sëriñ Pape Mourtala ak rakkam yëpp ak ñi nga xam ne ñoom lañ bokkal jotaay bi ñëpp Ah, di doyloo kàddu yi nga xam ne ni bokk yëkkati nañ ko léegi di ko rafetlu macha allah su fekkoon ne wax mën naa ñàkk ci suñ ci ñun du ñu wax gàmmu gi nag mi ngi noonu yaakaar naa ni lu nekk am seede def caa baax gàmm gi ku nekk xam na gàmm ni mu méttee wala ñun bi ñun ñi am na luñ ci xam ndax gàmmu Thiénaba Kajoor a tax gàmmu Thiénaba Kajoor bu xasaan jàll ah day yéeme man ak Khalifa Ndiaye mii buñ masaana nekk ci biir néeg bi ak ma kan bu Thiénaba dañuy dégg dañ sëriñ bi daf ñu daan daf ñu daan wax ah, ci wàllu coono yeeg nangam lim ciy daj moo tax mu daan wax ni su lu ci waay di def su dul yàlla rek perte ma dikkal na ah, kon bu ñu wëlbati ko atee sumbaat lu mel noonu la tax ñu di ko def du ñeme coono bi ah, du bëgg koo def waaye ndigal moo tax ñu di ko def jamono yi nga xam ne ci la sëriñ bi daan yëkkati gémmiñam di ñu ko sant wala di ñu ci soññ wala mu sampaloo ko xalifa njaay mii mat na ci seere yaakaar naa ne lu man ñetti at at mu jot sëriñ bi soññ na ma ko am na bis fii ñu teg caméra bii mu toog ci fii ci peron bi fi la sëñ bi jàppe sama mbagg yëngal ko ni ma nag looy ragal loo am ndigal jëratul nga di ko ragal am nga ndigal ma daal ni waaw baax na ca déwén sa la sëriñ bi euh, euh, noppalu ab liggéeyam at mi ci toppaat sëriñ papp sekk Mourtala soññiwaat ma ci ci kanamu xalifa Ndiaye mii ma ne ko nag sëñ bi jàppal bis ci bis booba lii moo waral gàmmu tawax te wax dëgg yàlla ak yonent bi bañ ko tàmbalee ba léegi ah, gis nañ ci loo xam ne nii wax dëgg yàlla ah, xam nañ ni mag ñaan na ci la tax ñu gën caa ñeme lool sëriñ Abdul Aziz sekk bu cabe keroog bi ma njëkkee jóge jaaga di ñu jàpp ko dimanche ma jóge jaaga dem ba ma nee ba ma ko ko waxee daf ni ma baay xalifa ma ne ko labbayka ndax noonu la tàmmee duñu ko wooye di wooye kenn ku nekk moom bëggul di jaar sax sa tur ma ne ko labbayka mu ne li ma la bëgg a gëmloo mooy sëriñ ma dikkee bu kafee yàlla dëggal ko sàkkaama bu caaxaanul sëriñ ma dikkee ay kafam rek dëgg la sàkkaamaa lu mu caaxaanul taxawal gàmmu gi tam bu ko bul ci waaj dara defal lii la ma sëriñ Abdou Aziz Seck wax ah sama fit nag gën a gën a joxe samay mbokkit wax di yàlla ku ma ci wax nga gën a jàpp gàmmu gi nekk fa loo xam ne nii teraanga boo xam ne nii sagu diine jëla waaye sagu kër gi la sagu sëriñ ma dikke Seck la it ndax daanaka ci ginnaawam ci dundam lañ koy def waaye lañ fay def lépp ci turam lañ koy defe ci ndigalam lañ koy defee muy responsabilité doomam nga xamante ni Baye Cheikh moo ba ba ma koy njëkk a jàpp damaa dem ba ci moom laaj ko ndigal ñaan loo ko ci mu ñaan jox ñu ci ndigal tàmbali bañ demee nii lañ ko koy waxee mu daal di ñaan joxe ci ndigal ah wax dëgg yàlla bi ba léegi nag ñu ngi gis ni ñaan yooyu mi ngi nangu kon daal gàmm gi mi ngi noonu euh, ñu di ci woo ñëpp comme ni ko mbokk yi waxee képp koo xam ne daal yaa ngi naan ashadu an laa ilaha illallah wa ashadu anna muhammad rasulullah ñu ngi la ciy woo woote nag ci jamono dafa xaw a naqari ndax xelu doomu aadama léeg-léeg dafa am fu muy yem ci xalaatam fa muy toog ba bu jógee sax day rectifier yi ni man di diw waroon naa ko tudd waaye ñu xam ne képp ku ñu tuddul ci jataay bi muy kàddu gi nga xam ne ni suñu mag suñu soppe Xalifa Njaay yëkkati na ko léegi ak kàddu yi nga xam sëñ Alindoo yëkkati na ko léegi ah ñu jàpp ni sëñ Alindoo ak sëñ Xalifa Njaay ku ñu bàyyi wala man mi ku ma bàyyi rek kooka na jàpp ne moom lañ jiital ci tudd bi xëy tudd moo neexul day dem ba pare ñu ni ma waroon ngaa tudd diw waroon ngaa tudd diw waaye yàlla seede na ni amuñu ku ñu bàyyi ci xog ci yéene waaye nag mën nañoo bàyyi nit ci làmmañ fu mbokk nekk fu taalibe bi nekk fu jullit nekk fu am di jàmm nekk ñëpp tudd nañ leen ci xol kon ñu ngi rafetlu jataay bi ah, di yemale foofu kàddu yi ah, wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu. naaw kàddu yi Serigne Khalifa Gueye imaam ca Tawa ci gàmmoom gu tedd googu muy wàcc nee na mu ngi koy yëgal magam xaritam El Hadj Pape Mor Gueye xalifa maam Tafsir Mor Gueye ak njabootu ngeen gépp waaye xalifa nee na mu ngi ko yëbal Mahdi Cissé xaritam bu bàyyi alaaji euh, Taala Cissé xalifa nee na mu ngi ko yëgal magam xaritam nu bokk sëriñ Madické Seck borom yàlla nee na muy alaaji Ngagne Demba saar ak képp ku mu bokkal maam Bakar Sarr fa tabaarakallaahu su ko defee kon ñu jox sëriñ Seexu Amadou bu ma dikk Seck borom yàlla nee na incha allah mu tëjal ñu kàddu yi. alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala rasulillah sayidina radiyallahu an seexi tijaani yow ma lana ilayhi wasilun kaasiful xumami mbokki asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ñi ngi nuyu ñëpp di siyaara ñëpp di baal waq ñëpp di baal ñëpp waq di ñaan yàlla mu boole nu baal ñu ñëpp ci barkeb yonent bi alayhi salaatu wasalaam ak ci barkeb alquraanu karim fa tabaarakallaahu ak ci barkeb bàkk bu tedd bii ñu nekk di Thiénaba Kajoor fa tabaarakallaahu di yëkkati kàddu yu gàtt rek nga xam ni kàddu sëriñ Mourtada Seck la yaakaar naa comme ni ko sunu waajur waxee fa tabaarakallaahu sëñ Xalifa Ndiaye nii ma ko waxee sëñ alindooy nii ma ko waxee fa tabaarakallaahu muy gàmm goo xam ni man na wax ni gàmmug sëriñ Madike Seck la muy gàmmug imaamu Xalifa Gueye mii fa tabaarakallaahu nekk ca taw a Gueye sëñ Xalifa nag yaakaar naa di jëmm joo xam ni képp ku ko tudd rek sa xel dana dem ci sëñ Madike Seck borom yàlla nee na ndax jëmm la joo xam ni jàpp naa ni lépp lum jàng wala lépp lum xam rek gannaaw yàlla sëñ Madike moo ko def ci moom. fa tabaarakallaahu maa ngi fàttaliku benn bi sëñ Madick mos naa toog fii ñuy waxtaan ba mu yàgg mu ni ah xalifa Gueye di jàng rek laa yéene ci moom ndax loolu lépp la ko waral mooy yéene gum am coom ak pasteef gum am coom fa tabaarakallaahu Khalifa Gueye di jëmm joo xam ne ku jàmbaar la di jëmm joo xam ne ku gëm sëñ Madick la waaye di jëm joo xam ne ku am taxawaay fii ci kër sëñ Madick la gàmmam googu nag di la 7 mars fa tabaarakallaahu 2020 sëñ Mourtada ni mi ngi koy fàttali ñëpp nag di ci woo képp kuy ashadu an laa ilaha illallah wa ashadu anna muhammadu rasulullah mi ngi lay woo ci bis boobu ndax xalifa gay fa tabaarakallaahu day jëmm joo xam ni fa tabaarakallaahu kenn la ci sëriñ Madike waaye kenn la ci sëriñ Pape Seck sëriñ Pape nee ne képp fu taalibeem nekk rek moo xam góor la moo xam jigéen la foo mën a nekk rek mu ngi lay woo ci gàmmu xalifa gay googu ndax gàmm la goo xam ne jàpp na ni gàmmu boppam la ngir xalifa gay taxawaay bi nga xam ni am na ko ci sëriñ Pape Seck Mourtada kon fa tabaarakallaahu sëñ bi mi ngi koy woo di ci woo ñëpp rek te gàmmu googu ñu jàpp ko le 7 mars 2020 fa tabaarakallaahu sëñ Xalifa gay nag yaakaar naa kenn la ci sëñ Madické waaye yaakaar naa kenn la ci njabootu sëñ Madické gépp ndax man mii di wax wax naa ko ba tàyyi ma ne bi ma mokkalee alquraanu karim sëñ Madické moom la yebal ci man ca daaray taala yi ca Louga fa tabaarakallaahu mu téel ma fa alquraanu karim téel moom lu tolloog ñaari kaamil kon yaakaar naa te ba muy ñëw foofa xaw ma ko woon sax bi ma téelee alxuraan ba mokkal ba pare ci la may doog wax moom mooy kan ci man fa tabaarakalaw kon loolu lépp nag boo ko déggee danga xam ni moom yàgg na ak sëñ Madické kon fa tabaarakalaw ñi ngi ñaan ci bis boobu yàlla nañu ci yàlla yóbbu ak jàmm ñu dugg ci bisimilahi rahmaani génn ci alhamdulilahi rabil alamin te lépp di yàlla kese fa tabaarakalaw di jiital ci nuyoo bi ak ziar bi nag Baye Cheikh Ahmad Tidiane Seck xalifa général bu Thiénaba di ko nuyu di ko ziara di ko ñaanal fa lu gudd ànd ak wér-gu-yaram di nuyu sunu waajur Serigne Talla Seck imam Thiénaba Kajoor fa tabaarakala ak mbooloom rakkam yëpp fa tabaarakalaw ñu ngi leen nuyu sëriñ Pape daal fa tabaarakalaw nee na mi ngi ci soññi julliñ yëpp képp ku wax asadu an laa ilaha illallah wa asadu anna muhammadu rasulullah mi ngi lay woo ci bis boobu yàlla na ko fekk jàmm dugg ci bismillahi rahmaan génn ci alhamdulilahi rabbil alamin lépp yàlla kese asalaamaaleykum wa rahmatullah Allahumma Euh, bokk yi kon loolu lañ la jëlee woon ci gàmmu Serigne Khalifa Gueye googu ñuy wàcc euh, bokkoon nañ ak jotaay sunu ndiyaay Serigne xalifa Ndiaye waaye bokkoon nañ ak jotaay Serigne Cheikh Amadou bu ma Madika Seck boroom yàlla nee na bokkoon nañ ak jotaay Serigne xalifa Gueye mi boroom gàmm gi bu Cenaba Seck sëñ Alpha Sarr directeur bi ñëwoon na teew Pape Abdoulaye Mboub macha allah ak Aliou Ndoye Talla ci technique bi yàlla na ci yàlla yóbbu ci jàmm ci barke yonent bi